jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi euh, déglu rajo Rewmi FM ñu leen di nuyu bu baax a baax sunu mbokk auditeurs yi ak euh, sunu mbokk auditrices yi kàddu gi bu ngeen ko déggee nag samedi ci heure bi ngeen xam ne seen émission pencum réew mi moom mooy commencé ñu dellu am mbégte bu baax a baax di ci ànd ak yéen di nuyu mbooleem ñi nga xamante ni ñoo nekk ci personnel rajo bi. Euh, technique bi euh, Léopold di moo ci nekk mbokki nag tey seen euh, émission bi pencum réew mi dafa daal di am gan di Abdoul Malick Bousso nekk membre di bureau exécutif bu Forum Civil moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bare bare bari Abdoul Malick Bousso réew mi FM a ngi lay nuyu. maa lay fay sëñ mhm. di mhm. kontaan woote bi ngeen ma woo ma ñëw dajeeg yéen. Mhm. Euh, di fas yéene def ak yéen. Mhm. émission bi nga xamante ne moom nga tuddee léegi pencum askan wi. Mhm. pencum réew mi pencum réew mi. ah penc pencum réew mi réew nag dañ koy pencoo. dañ koy pencoo <laughs> kon daal réew mi mais réew mi est ñoo ngi koy pencoo. wala ah. ñu koy pencoo lañ wala lañ koy paacoo. moo war lu ñuy war de mooy pencoo ko te ñun loolu la ñuy taxaw ñun forum civil. Euh, di fexe ba nga xamante ne forum sax mooy penco. forum mooy penco forum mooy penco. waaw xam nga dajale di wecco xalaat. ndax jëm mbir mi jëm kanam. waaw xam nga émission pencum réew mi moom euh, suñ première laaj yu njëkk day day aju rek boo dee xool si ni ngay nuyoo wala li ngay wax hmm. sànq nag ne réew dañ koy pencoo. ndax sunu réew mii di Sénégal. da ngaa gis ne dañ koy paaco wala dañ koy pencoo yéen waa Forum Civil. xam nga réew lu ne euh, euh, li euh, damay sawar di dellu ci li ngay wax parce que ñun li ñuy yitteel mooy gouvernance mooy yorin yorin nag ab dénkaane la yow mi yor li li nga yor moom moo ko dañ la ko dénk muy nag pouvoir bu mu ti doon c'est un pouvoir délégué parce que pouvoir bi askan wee ko moom réew mi mm-hmm. réewu askan wi la mm-hmm. donc euh, puisque nag dañ la dénk. Mhm. li ci war. Mhm. li ci war. waaw euh, da ko war a def. Mhm. boo ko defee dellu ci ñi la dénk. nga wax yan anam nga ko yore loolu moo tax gouvernance yitteel forum civil euh, li ñuy def yëpp. dañuy fexe ba nga xamante ne. yorin wi na sell. yorin wi na set. yorin wi na mucc ay loolu moo tax nga ne. pencoo nag euh, naam lu war la. Mm-hmm. Euh, ab réew nag boo ko yoree. Mm-hmm. Euh, yorin wa la kulli aal ñi nga yore dañu am droit ak sañ-sañ ne yow. Mm-hmm. ni nga leen yoree. est-ce que ànd nañ ci walla ànduñu ci nagam doy na leen walla doyu leen loolu moo tax politique publique yi nga xamante ne moom la état bi ak ñi ko ŋànk mooy acteur politique yi. di exécuter pour citoyen yi la. d'accord parce que nag pour citoyen lañ koy in citoyen am nañu sañ-sañ saa su ne ñu woo leen wala nee leen ni ngeen ñu yore ban sifaa la. d'accord ban anam la. jërëjëf euh, jërëjëf euh, Abdoul Malick Bousso yow nga bokk ci Forum Civil. fi nga xam ne rek fi la ñuy commencer waxtaan bi mooy li nga xamante ni moom moo xew ci àdduna bi di Covid 19. Euh, mu nekk jàngoro joo xamante ni euh, gis nañ ni mu def ci àdduna bi mais dañ si waxtaan ñun ci fii si sunu réew mii di euh, Sénégal waaye dañu koy commencer rek fi nga xam ne fi la mbir mi. Mm-hmm. doore woon ndax yéen Forum Civil mën nañoo leen a tuddee ay superviseur ñoo xamante ni yéen da ngeen di xoolal askan wi di saytul askan wi di rendre compte tamit li nga xam ne mooy askan wi bu ngeen waree interpeller nguur ngeen interpeller nguur. Mm-hmm. su ngeen ko waree ŋàññi wala su ngeen ko waree jubbanti. wala bu ngeen ko waree xelal. Euh, Covid 19 bi bi mu commencé Sénégal euh, gis nañ ne président Macky Sall dafa daal di def li nga xam ne mooy euh, état d'urgence couvre-feu loolu yow nan ngeen ko gisee. président de la république balaa muy def loolu dafa njëkk woo ku jéem woo société civile woo ay kàngaam yu nekk ci réew mi waxtaan ak ñoom. ci li nga xamante ne moo dal ci àddina parce que daanul rek ci Sénégal. te est que est-ce que du état d'urgence bee njëkk. état d'urgence bi jëkkul. Mm-hmm. non c'est venu après. Mm-hmm. donc bi mu wootee loolu ñu xelal ne euh, ci weccoo yi ñu weccoog moom ñun forum civil dañ ko de ah li ngay def nii de euh, tëj école yi parce que loolu jiitu euh, ne nit ñi nañu nëgëndiku nañu respecté yenn anam yi. yaakaar naa ne musiba bu mel ni bala bu mel ni buy ñëw ab njiit nii la war a jëfee te ànd nañ ci ak moom ca loola ci aussi euh, mesure yu mu jël yi nga xamante ne naam ñun li ñu soxal mooy espace public bi kenn du ko restreindre liberté yi lañ leen exercer am na tolluwaayu nation fu muy toll ci li nga xamante ne ci musiba ak bala day laaj ñu ajandi yenn yi ajandi yenn yi nag te fekk euh, signifiewul ne loolu dafa dañ dañ koy aj ba mun a jëflanteek liy lor ba daan ko delluwaat ci li ñu newoon te lu baax donc mhm. ñun président de la république mesure yi mu jël yooyu ñun dañ mhm. cee ànd te dañu génne sax ay déclaration di dañ ko ci encourage ci loolu euh, tontu yi nag ay tontu yu bëri la. Mhm. tontu bi tontu économique la tontu médical la tontu social la tontu bi tontu la ci jikko yi tontu yi dafa concerner état dafa concerner yéen euh, nga xamante ne yéen ay joxe jottali xibaar yi ñun société civile dafa laaj suñu participation citoyen bi aussi dafa laaj implication parce que mbir mi mooma d' accord mais mais euh, li président wax euh, ci xaalis bi nga xamante ni nee na euh, moom la ñuy moom la ñuy dajale. Mhm. lenn li ñu jëndee kook dund leen li ñu jàppale si yenn ci entreprise yi bokk na ñenn ñu jàppale taskatu xabaar yi moo xam ñi se nekk ci patronat bu Sénégal xaalis boobu noonu ak ci wàllum wér-gi-yaram gi. wàllum école bi sénégalais yi nekk euh, ci diaspora bi. Mm-hmm. Euh, yooyu noonu noonu mu ko euh, séddale ndax jàpp nga ne lu aw yoon la. xam nga séddale bi ay xayma la mais lu am importance mooy que président bi lan la jagleel dafa ne plan de résilience am bi ñeenti tànk la am tànk bu njëkk bi mooy santé bi li koy suqali permettre réew mi mun a àddu àddu bu war ci mbas mi ñu ko jagleel soixante quatre virgule quatre milliards beneen bi mu ne askan wi ak njaboot wa askan wi naka lañ leen dimbalee balaa ñuy gën a loru ci mbir mi nga xamante defa ko mu jagleel ci li nga xamante ne électricité bi ak ndox mi mu jagleel ci aussi lu ñuy jënd euh, ab dund distribuer ko ci mi un million de ménages yi nga xamante ne ñoo gën a niw doole niw doole beneen bi mu jagleel euh, douze milliards diaspora bi nga xamante ne mooy euh, suñu mbokk yi dem bitim réew di wuti di indi te ñu féetee réew mi foo xamante ne fu mucc ayib la te lii dal leen ba ñu nekk ci confinement ñoom aussi ñu nekk ci ay jafe-jafe beneen bi mooy stabilité macroéconomique c'est-à-dire tissu économique bi këru xëyukaay yi naka la ñuy fexe ba ñu bañ a suux ba liggéey bi ak xëy mi bañ a sooke ah, loolu tamit am lum ci def mu ne nag day samp kuréel kuréel bi muy samp ku gi dina ci nekk administration dina ci nekk société civile dina ci nekk ñoom ñoo war a piloter mbir ma léegi nag euh, loolu munuñ ci bañ a ànd d'accord mais liy am problème mooy. opérationnalisation bi ah. naka lay demee. mais kuréel googu euh, li ñu gis mooy euh, euh, comité de pilotage boobu mën nañoo wax ne bàyyi ba jaan dem nga topp sa wati dóor wala fa nga waroon a njëkkee njëkke woo fa njëriñ li est bëri na ndax tey Macky Sall njiitu réew mi dafa woote société civile beeg politiciens yi waxtaan pale ba. Hmm. ñëpp dem lan moo tax. Euh, milliards yi nga xamante ni dañ koy dajale te du xaalisu nguur du xaalisu nguur xaalisu askan wi la kenn ku nekk daf ci dugal ñaqam lan moo tax avant muy ne lii fii laa koy dugal lii fii laa koy dugal lan moo tax tegul ab commission boo xam ne ñii dañuy jóge ci société civile bi ñi nekk ay kilifa diine ñi nekk ay parti politique ñi nekk ay journaliste mu ne leen milliards yaa ngi nii euh, nañ taxawal benn comité de pilotage kenn ku nekk joxe sa xalaat ci xaalis bi nan la ñu koy def waaye bu dee génne na xaalis boobu waxal boppam ne fii laay dugal fii laay dugal jekk-jekk ñiy gañe ay marché gañe ay marché ba commencé séddale ceeb bi ndax comité googu teg ko am na njariñ ceeb bi commencé gu ñu ko séddale jënd nañ ko nag mais am na am na ñu ñu jot a dem ñu jot a dem waaw am na gox yu bari yoo xam ne ceeb bi dem na ceeb bi dem na mais séddalu ko mhm. parce que paj yi ñaar la mhm. xam nga xam nga dafa am lu am na ñu jot a jot ñu jot a jot ceeb ceeb ñoo xëy na yéen ay dimbalu mairie yi la ak yeneen mais ki li état bi def. Mm-hmm. li état bi def léegi lañ ko livré ci région yi. te mm-hmm. pareegul sax dem. 9000 mm-hmm. tonnes demagul sur 100000 tonnes. waaw mais def nañ appel d'offre ba ma marché yi ñi koy gagné gagné nañ ko ba pare. waaw loolu moo tax loolu moo tax ma bëggoon leeral foofu. marché yi dafa am loo xamante ne euh, loi d'habilitation bi ak benn décret bu président la république jëloon dafa soustraire. soustraire au code des marché publics l'exécution des marché yi nga xamante ne code Covid 19 bi moo ko sabab am na ci sañ-sañ dafa am nag loo am sañ-sañ ak lu rafet ak lu jekk président de la république bu nee day mettre en place un comité waroon nañu négandiku ba comité bi nekk en place pour dépense yu ñu def ci Covid 19 bi. ñu def ko ci autorité wu comité boobu. Mm-hmm. boo gisee coow li bëri. wax ji bëri. Mhm. am na walla amul c' est parce que quelque part dafa am distorsion entre volonté président de la république de mettre en place comité ba ak jéego yi ministre bi tegagum te euh, yi mu tegagum am ci ay yoo xamante ne dafa am saafaan boo jëlee ko mel na jub si laab laabe nañu non seulement amul park camion boobu. ñu xayma mu war a. mun mais mais mais comité bi ñu ñëw euh, comité bi ndax gis nañ ne euh, tey euh, li tax comité bi ñenn ñi jàpp ne moo war a jaar yoon ak li tax ministre bi wuruñu woon koo bàyyi ministre bi yor ko ndax bu doon xaalis boo xamante ni si état lay jóge état bi su ko neexee dénk ko ministre bi waaye xaalis boo xamante ni askan wi dama see def sama fukki dërëm kiy def ci cent francs dañ ko war a dénk benn kuréel boo xamante ni tey. kuréel bu indépendant lay doon ñoo xamante ni seen yoon nekkul ci mbirum mbirum parparloo mm-hmm. ndax bu nee day jox nañ ko xaalisu askan wi la boo xamante ni kenn ku nekk moo ko dajale mm-hmm. naam sax bu doon alal joo xamante ni Macky Sall ko dénk benn ministère kooku daf ko war a jaarale ci yoon waaye nag rawatina xaalis boo xamante ni tey mën nañ koo tuddee ndimbal ñiy way politique yi dugal nañ ci seen xaalis sénégalais lamdaay dugal ci seen xaalis ñu bëgg a ñëw jox ko koo xamante ni tey ñenn ñi njort nañ ne daf ci dugal mbiru politique moo tax comité boobu tey euh, yéen waa forom civil li ñu gis te yéen ñaxtuwu leen ko wala naqarluwu leen ko mooy da ngeen waroon naqarlu ne comité dafa war a am avant que mbir mi ñu koy commencé. Euh, ci li nga po question bi nga posé euh, comité bi comité bi président la république moo ko décidé du ñun ñoo ko décidé. mais am na société civile ñu ko sàkku. waxuma yéen waa forum civil mais société civile. société civile dañu dañu ne pour nañu décisir ministre bi. bokkul ak nañu mettre en place comité comité. commission commission euh, euh, commission de pilotage ñoom ñoom euh, Moundiaye Cissé liir naa leen témoin. waaw dëggal dem avant-hier. dëggal xam nga rappel dafa dafa baax xam nga discours président de la république bu 3 avril bi xam moo jiitu seen déclaration bi. Mhm. président de la république bu ñu demee mesures yépp bi mu koy bi mu koy tëj ci discours bi dafa ne la force Covid-19 sera supervisée par un comité de pilotage comprenant les représentants de l'État, de l'Assemblée nationale, toutes sensibilités confondues et de la société civile. Mmh. avril la ko président de la République wax. mais waxam ji. méngoowul ak jëfam dafa dafa ma ñëw. xam nga xam nga euh, euh, ministre ak état dafa am ay pouvoir muy soxe pratique yu baax dafa baax président la république bi mu commencé nee nañ ko lii baax na defal nañ ko ay suggestion parce que tamit moom la ñu dénk réew mi moom mooy rendre compte population yi ko fal ñun dañuy yombalal mbir ma di def ba mu sell ak set ñëpp nag ak seen ay sañ-sañ sañ-sañ bu defee lu baax ñu ne ko baax na bu defee loo xamante nañ ko war a noddanti ñu ne noddante yi fii la ak fii la ak fii la donc bi ñu kiiyee nee nañ président la république ñun form civil génnee nañ benn déclaration ca njëlbeen ne ko suggestion yi ñu lay doon am nga ay moyen juridiques ak ay moyens politiques moyens juridiques yi yii la yii la yii la yii la ñu xayma ko xaatim ko envoyé ko moyens politiques yii la yii la yii la bu demee ba sentir nécessité indi inclusion dans la gouvernance covid 19 force bi dañ koy rafetlu bu amee saafaan ci opérationnalisation bi dañ ko dénoncé xaaruñ ba gars yi génne seen déclaration. lan ngeen ci dénoncé yéen. dañ njëkk a le fait que d' abord d' abord euh, code des marché publics bi code de marché publics bi nañ ko appliquer dans la toute la mesure du possible parce que urgence terewul. transparence ak équité transparence dafa war ci looy def lépp leer ba nga xamante ni suba du am benn werante que jaar na fi mu waroon jaar urgence bi nag tax na ñu war a baral mbir mi mu war a gaaw mais war a gaaw bi taxul ba ñuy choisir koo xamante ne peut-être société dafa nekk en liquidation judiciaire wala xëy na disposition yi nga xamante ne moo war a méngoog ki ñuy jébbal mbir ma pour mu dox li ko état bi sas moom am na lu ko gàllankoor loolu moo tax ñu def ay dénkaane ak ay. ay ay ay ay kii maintenant léegi. problème bi yéen yéen euh, euh, société boobu ngay wax ne euh, dañ ko liquider comme ni ma déggee waa si Civil wax ko. Hmm. bu jóob si bi. lan hmm. moo leen si naqari yéen ak lan moo tax lan ngeen ci ñàkk ànd. de sifa bi ministre Mansour fay defee la xam nga mënuñu ne euh, état warul exécuter politique publique mais je crois quand président de la république nee na day mettre en place un comité naam moom la ñu wàll boobu soixante neuf milliards yi moom lañ ko jagleel am na yenn jéego yi boo koy def ak lu mu gaaw gaaw boo mun xaar comité ba war na jël ay motukaay yoo xamante ne suba duñ la indil lay boo ne xamante ne lii jaarul yoon wala lii am na luñ ci lu luñ ci dute parce que dut baaxul fi ñu toll fii li réew mi laaj li réew mi laaj parce que mbas mi dafa laaj àndoo booloo dajale man man yi ak xel yeeg xalaat yi ba ñu paasee ci lii ñu delloo nag ci li ñu ne woon ku jéggi delloo ku jënte société civile dem ci rôle ak ve alerte am du même ci fi ñu toll veille ak alerte bi société civile waru ko mun a bàyyi. d'accord parce que loolu mooy raison d'existence. léegi euh, mbokk yéen a ngi déglu Rewmi FM ñoo ngi invité Abdoul Malick Bousso mu bokk ci Forum Civil xam nga euh, Abdoul Malick sànq li ma la doon wax moom ngay wax ni ka mhm. euh, yéen yéen ngi ñaawlu yéen Forum Civil ni nga xamante ni tey amaana moom lañ doxalee ci mbiru. Euh, marché bi jëm ci wàllum transport dégg naa from Civil ni ngeen ci communiqué ak ci mbiru Diop Sy mais sànq moo tax dama la wax na la. Mm-hmm. dafa am loo xamante ni incohérence ñu bari dañ ko ci gis. Mm-hmm. te mbir moo gis dafa am fu muy commencé ak fu muy jëm day am bopp day am geen mm-hmm. mais li nga xam ne moom lañ gis tey ci force Covid 19 bi. mooy dañoo jekk-jekk rek commencé sa sa genn ba. ndax dama jàpp ne comité de pilotage boobu nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall wax na ko. ci discours am. 3 avril. mooy comité boo xamante ni tey mooy sàmm xaalis bi nga xamante ni moom lañ dajale. du caage ne li ñu jëndee dund kese. ndax li ñu jëndee dund moo gën a tuuti ci xaalis bi. pepp la si mais beneen xaalis bi tamit. ñuy xam. fan la ñu koy dugal. ak yéen ngeen joxe ci seen point de vue. ngeen joxe ci seen xalaat. mais su dee comité de pilotage boobu ba léegi nii ñuy waxee ak yow nii tegaguñ comité de pilotage bi commencé joxe ay marché ba ñiñ joxe ay marché ñenn ñi commencé ŋàññi noonu ñooñu ba nga xamante ne élan de solidarité bi amoon ci mbir mi presque jamono ji ñu bari seen xel mën naa teey moo tax dama ne est-ce que yéen Forum Civil su ngeen teeloon a alerté artu ci comité de pilotage bi ndax fii ñu yegg danañu fa yegg euh, euh, xam nga xam nga aussi gis nga gis nga ku nekk ak sa rôle euh, li ma la waxoon sànq urgence mayu nit ki def lu ko neex urgence mayu nga def lu la neex mais urgence may na état bi mu indi mode de réponse yi muy indi parce que loi bi ko voté moo ko may doole boobu am na nag li la loi may am na lu mu rafetee ak mu jekkee bu président kilifa réew mi ne li ñuy def lii nii laa ko bëggee yow boo defee lu dul loolu na fekk loola jub. Ah, mais est-ce que d'accord nga ñuy commencer mbir mi te teguñu comité de pilotage ndax d'accord nga ci. mënuma ci d'accord parce que président de la république waxeewul noonu. kon lam wax lam wax ak lim jëf. du moom moo jëf. Ah. parce que man mënuma ne président de la république moo jëf. koo jàpp ne moo jëf. Euh, ministre bi nga xamante ne moo chargé question boobu ni mu defee moom la ñu ŋaññ. moom ngeen ŋaññ. parce que président de la république axe bi mu def. woo nit ñi waxtaan ak ñoom ne damay dem ci assemblée nationale ñu sas ma laaj leen li ma constitution may pour lu mel nii bu ñëwee ci àddina ñëw ci réew mi par mu am taxawaay bii woo mboolu ñëpp pour ñu ñëw jàpp ci damay mettre en place un comité de pilotage ban xel mooy mooy mooy bañ loolu. d'accord mais passé léegi mise en opération bi mooy comité de pilotage mooy travail gouvernement parce que lu gouvernement n'est pas en vacances. ils ne sont pas décisifs la gouvernance du pays réew mi ñoom lañ ko dénk ñoom ñooy defar mais dafa toll foo xamante ne ñoom rek doyu ñu ci yore réew mii ci anam yi ñu toll. d'accord loolu moo tax ñu président de la république boole ci ñeneen ñoo xamante ne mais nañ leen ci boole. d'accord mais yéen est-ce que forum civil yéen euh, jàpp ngeen ne tey même président Macky Sall su dee am na loi d'habilitation boo xamante ne may na ko muy jël ay sañ-sañ xaalis bi nga xamante ni tey ay milliards yi milliards la. ndax yéen pare ngeen buñ demee ba séddale ceeb yeeg li ñuy dugal fii ñu dugal ko fi ngeen maanaam ñu rendre compte. mais pouvoir yi ñu la jox dama la ne euh, ab réew président de la république moom réew mi dañ ko dénk ab réew gouvernement bi moom réew mi dañ ko dénk ab réew ku ñu dénk ki la dénk dafa am sañ-sañ. laaj la li mu la dénk naka nga ko yore urgence ou pas urgence rendre compte dafa war ku nekk ci ñun même yéen dénku ñu leen de ñun falu ñu ñu de mais dafa am lu daanu ci réew mi mi nga xam ku nekk daf cee war a am taxawaay ku nekk nag da nga war a firndeel suba taxawaay bi nga waroon taxaw. est-ce que taxaw nga ci lu ci war mais kenn waru see profité eh, bien sûr kenn waru see profité di def lu la neex. Ah. mayu ñu sañ-sañ kenn dañu la jox ay pouvoir exceptionnel. mais joxuñu la pouvoir nga def li la neex. mais est-ce bi may na Macky Sall mille milliards yeeg lu teg kenn du ko càmbar ëllëg. déedéet. yoon mayu ko ko yoon mayu ko. kon ëllëg war nañu man a leeral. assemblée nationale dina ko càmbar. cour des comptes dina càmbar. et puis Macky Sall wul xaalis bi am na ñeneen ñu koy gérer ministère sectoriel yi di gérer dañuy rendre compte gouvernement bi lu mu def assemblée nationale bu defee róoram dafa war a saytu li ñuy liggéey société civile bu defee róoram dafa war investiguer ba xam yéen journalistes yi nga xamante ne yéenay tas xibaar yi pepp dërëm bu jaar ci ci ci biir Sénégal war a faj lenn war ngeen ko gëstu ba nga xam fekkee jaar na fu mu warul jaar ngeen informer opinion bi ci gouvernance loolu d'accord ku nekk ci ñun euh, dafa am rôle léegi euh, dañuy wax ne euh, coow li nga xamante ni moo si juddu ñenn ñi nga xamante ni tey ñoo nekk ci wàllum transport dégg naa ñu ne Diop si prête noo la am na ñoo xamante ni yéen nee ngeen société bi dañ ko dañ ko liquider ñenn ñi benn euh, juriste euh, ku tudd Ngouda Mboup nee na euh, mandat député méngoowul dafa incompatible ak li nga xamante ni tey mooy fonction chef d'entreprise mm-hmm. keneen ki nga xamante ni tamit moo tudd Rayane Hachem mm-hmm. ñoom tim ñu ne ñu baree bari xamuñu ko woon ci mbirum ceeb beneen bi tamit société boobu même adresse bi dafa am beneen société boo xamante ni ma nga fa coow li juddu mu mel ni ñenn ñu njort nañ ne dafa am benn looxoor bu ci am coow loolu nan lañ mënoon a def ba moytu ko. ah sellal mbir ma buñ ko sellaloon lii duñ ci dab ah ñun laab-laabee xaritu ministre bi la ñuy laab-laabee ministre bi dafa cëral ay ay ay nit. ay jegeñaale ay jegeñaaleem loolu yëpp lu koy indi mooy que ñun xam nga xam nga société. Euh, euh, di honorable député Diop du ñun ñoo ne dafa nekk en liquidation judiciaire mais dañu dem ci plateforme ministère de la justice gis ne que depuis deux mille dix neuf il est admis sous le régime de la liquidation. amul sañ-sañ gagné marché. loolu am na même bu amoon sañ-sañ. dafa wóorul di ko jox marché koo xamante ne sax waaye mu ngi dee cest à fi mu ne. c'est l'extinction de sa de, de ses activités on procède à la liquidation moo na yëlay alalu réew mi di ko dénk kooku mooy suñu problème deuxièmement euh, man d'accord ma ne kii sénégalais la du sénégalais dafa war a indi ga camerounais non non euh, euh, malien wala burkinabé war na mun a jaay ceeb fii parce que UMOA moo ko ko may loolu du sama problème sama problème mooy lan est-ce que ci société bi sociétés yi sont en règle avec société nu muy tëddee est-ce que waa ji toog na entre le trois et le dix mun a am les moyens d'avoir autant de riz à livrer est-ce que amul délit d'initié est-ce que kenn toqalul ci noppam defarul de parce que lii dinañ jëndi suba ceeb nga fagaru am parce que yombul di dajale tonnage yu tollu noonu gis hmm. yu leer donc loolu yëpp dafa dafa indi ay laaj ak ay gëstu ñun mënuñu wax nag lii la de wala lu ñu def du noonu de mais dafa teey lu teey xel nag am na lu ko gën ci jamono yuñ toll lii rassurer Sénégal yi moo baax ci seen ay parce que on va rendre compte au pays c'est des ressources énormes que le président de la République va mobiliser mille milliards du caaxaan c'est vingt cinq pour cent du budget du Sénégal vingt cinq pour cent. d'accord du budget du Sénégal et loolu yorin bi ñu ko war a yor suba ku nekk danañ du baaraam naan la xaalis bi fu mu jaar. d'accord parce que xaalis bi jo génnul ne ah ci poosu Sénégal yi jóge li ngay wax sànq xaalisu état du xaalisu état gouvernement moomu ko réew mee ko moom gouvernement xam lu ñu ko sas. ndawu réew mi ñooy toog ne la ci alalu réew mi dajaleel lii mu nekk budget nga régler ko problème mu réew mi bu doyul may nañ la nga dem lebi temps boole ko ci saafara problème mu réew mi donc xam nga ne réew mi moo yebal ay ndawam ñu natt budget jox ko gouvernement mu nekk instrument de financement des politiques publiques bul ñëw njort ne que gouvernement même bu dul woon période d'urgence ñoom ñoo am sañ-sañ exécuter les dépenses publiques parce que loolu la loi bi santaane mais dañu toll ci période d'urgence période exceptionnelle bi nga xamante président dafa woo ñeneen ñu ñëw xel dimbale ko di xelal dafa laaj ay jumtukaay yoo xamante ne parlement bee ko yore woon parlement bi ne ko delloo naa la jumtukaay yooyu mooy que or dafay def décret loi ordonnance bu mu jël day am force de loi d'accord loolu yëpp dafa laaj ñu soppi jëfin ak ni ñu doon liggéeyee nañu liggéey liggéey bi sell liggéey bi set pour que population bi ñu bëgg a protéger ci ci ci ci ci ci mbas mi ak ci conséquence am ñu mun ko def ci anam yoo xamante ni. d'accord suba kenn waaw mais mais est-ce que comité de boobu laaj bu mujj bi jàpp nga ne buñ ko euh, taxawaloon mën naa dabu li jot a jàll si leeraange ak xel mu dal. yaakaar naa ne lépp ci noddanti lañu ne. parce que lii mosul dal ci ñun lépp lu bees la il aussi ñu am humilité def ndànk euh, yenn jalgat yi walla yenn fëxëstalu yi mun na nekk c'est lié à ça parce que ministre bi wax na wax na le président lu met la permission nee na en quinze jours bu gën a cent mille plus de cent mille tonnes yegg fi mu war a yegg parce que réew mi da ko soxla loolu yëpp mun na am ay vulnérabilité yoo xamante ne peut-être mun indi loolu mais fekkee am nañu kuréel boo xamante ne ñëpp mun nañ ko dékku mhm. gunge mbir ma mhm. xëy na mun nañu noddanti ba liñ ci ragal ñu bañ ko ci am mhm. mooy inclusion bi euh, euh, boole fekk nag liggéey réew mi rek moo tax kuréel boobu ñu samp moo moo tax mu jóg te mu def li ko war xam ne suba dafa war rendre réew mi compte li mu liggéey d' accord loolu am na solo. jërëjëf euh, Abdoul Malick Bousso yow nga bokk ci forum civil euh, ñu invité la tey ci rajo Réew mi FM euh, seen émission pencum réew mi beneen ponk bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee ba tey moom mooy li nga xamante ni mooy loi d' habilitation bi tax na ñu gis président Macky Sall jël yeneen jéego. Mm-hmm. ndax soo gisee ñi nga xamante ni ñooy banques yi. Macky Sall si euh, la jël dogal ne bu ñu fayee ko nit ñi maanaam bu ñu dagg nit ñi li ñu leen doon dagg. si mhm. la modifié tamit li nga xamante ni mooy code du travail ngir ñu bañ a dàq euh, employé yi. Mhm. Euh, mesures yooyu nga xamante ni tey jël na ko si ndax jàpp nga ne tey loi d'habilitation bi loi la boo xamante ni bu am bu am am solo la. xam nga président de la république bu laajee habilitation ba assemblée nationale jox ko mais dafa firndeel rek urgence bi ñu doon wax ak jafe yi réew mi toll moo laaj. te jéego yu mu jël ci loolu ci anam yooyu ñun de forum civil dañ koy dañ koy rafetlu. mais njortoon dara nekk ci ginnaaw. xam nga nañu rafetal njort yi nag ñun gaaw nañ torop ci xarab gouvernement mais dañu du du heure xarab. moo mais njorto dara nekk ci ginnaaw. dañuy vigilant de danañu xool lu ne fu mu jëm ak fu mu jógee ak lu ko sabab mais dañu rafetal njort parce que lii fi mu jëm. ak fu mu tàllal baaraamam. Mhm. mais dañoo gis ñoo xamante ni xaw nag fekkee dina fa yegg wala dinañ fa yegg si mais foofu la. mais dañoo gis ñoo xamante ni euh, dañ koo njortu. mais ku nekk xam nga problème de perception la. Mhm. xëy na lu mu leen tàmmaloon la. Mhm. ñu ragal ne bon xëy na loolu la. wala loolu la ñu ci moom wala loolu la ko jàppee. d'accord mais ñun dañu yaakaar ne réew mi toll na foo xamante ne. Mhm. réew mi war waruñu ko caaxaanee. président de la république duñ ko bàyyi mu caaxaanee réew mi ñeneen ñi tamit duñ leen bàyyi ñu caaxaanee réew mi. d'accord léegi dañ ko euh, bàyyi mu liggéey. waaw euh, jërëjëf euh, Abdoul Malick Bousso léegi li nga xamante ni tey moom mooy bor bi gis nañ ni mbir mi dafa commencé rek réew Afrique yu baree baree bari di wax pour ñu. baal leen li nga xam ne mooy mooy det bi maanaam ngir euh, annuler ko ñeen ñi sax jàpp nañ ne Macky Sall moom dafa mujjee sax nekk ab avocat ñaari baat ñett yu mu wax rek ne nañ ñu baal bor bi démb sax wax na ko France 24 ak RFI bor boobu lan moo ci sa xalaat ak jéggal gi Macky Sall sàkk dama ci ànd ak moom bor bi dama ci ànd ak moom parce que daf ñu tënk bor bi dafay tere ñu exercer suñu souveraineté économique der bi dafa gàllankoor suñu mode de réponse der bor bi bor bi dafa étiquul cest à dafa dafa saafaanoog li gën baal ñu bor bi baal ñu bor bi lu war la parce que bor bi sax dafa warutoon ne lan moo fi amagoon lu tax ñu war ñu ko baal warutoo warutoo ne parce que mu musuñu jënd suñu su su su suñu ay ressources naturelles njëg ba ca war mais ñoom bu ñu demee ba dajale xaalis ba mun a am di di naay am na fu ñu ko jëlee. mais est-ce que toll nañ fu ñuy baalee bor. réewu Afrique yi mbir mi fan la deme demagoon ba tax ñu ba a yuuxu naan baal ñu bor. parce que lii di ñëw da nga koy fagaru boo jëlee cinq cent milliards di ko fay bor cinq cent soixante quinze milliards di ko fay chaque année service de la dette de waxuñu dette bi de intérêt yi. Hmm. service bi da ngay fay cinq cent soixante quinze milliards comme Sénégal loolu amul woon fu mu war a jaar. waaw waxuma nag ñu dugal ko ci teer de. waa wala ci leneen mais am na fu mu war a mun a dem non xam nga fi may waxee mooy tey ki nga xamante ni tey euh, da nga koo ameel xaalis ameel ko bor mhm. moo xam chaque fin de mois dafa am looy dugal mhm. wala chaque chaque at dafa am loo xamante ni moom ngay dugal uh-huh. kooku nekk nga si ay jafe-jafe mhm. nee na la dugal gi nga doon dugal mën nga ko pause mën nga ko dakkande legoon yow nga ne li nga soxla mooy ku la baal bor bi est-ce que tey par exemple tey euh, réewu Afrique yi nag euh, njiitu réew yi ni ñu gaawee songu nañ ñu baal bor bi nañ ñu baal bor bi teelut. du question teel d'abord der bi lu bor bi lu ko sabab lu waral réew yi dem ba nga xamante ne dañoo war a jéegaani bor yow da am dugub am ceeb eh, eh, am gerte bi ngay jaay am or am phosphate bi ngay jaay ñoom ñu koy jëndi heure fi mu leen neexee. ji ko jëflante ba ci def chaîne de valeur ba nga xamante dañ ci am loo xamante ne suba ñoom ñoo lay jàll oto ñoo lay jàll bu motul ñu ne la dañ lay lebal ñu lay lebal nga parfois di lebal ay njiit yoo xam ne dañuy foowee li ñuy bor bor boobu est-ce que askan wi war na ko fay même fekkee njiit yi dañoo yàq alal goo xamante ne dañ leen jox pour ñu tabax réew. mais ñooñu lébuñ ko seen tur. dañ ko tëj dañ ci tour état bi lañ ko luur. waaw ci turu mais mais bu demul ci Sénégalais te ñoom ñu xam. xam nañu banque mondiale yi def na benn rapport ay économistes am génnee ne l' essentiel de la de la dette prend les chemins de l' extérieur. waaw d' accord léegi ci flux euh, financier yi indi si Maliki bor boobu sur le plan de l'éthique dafa dafa taxawul. d' accord léegi Maliki des na des nag ñoom lan la ñu defee ci alalu réew mi ak xaalis bi nga xamante ne ñoom moom la ñu leb pour tabax réew mi. d' accord lañ ci def boobu beneen wax la. d' accord léegi léegi pour ñu leeral mooy dette bi. xaalis bi Sénégal leb. Mhm. fi mu ko dugal danañ ci wax. mais li ma lay wax mooy réewu Afrique yi. Mhm. dañu commencé wax ka ne Covid 19 bi xam nga Sénégal tey ñoo ngi leen wax ay 6 pour cent ak pour cent. Mhm. jamono jii ñoo ngi wax 3 pour cent. moins 2 pour cent. waaw Sénégal récession sax la ñuy wax. ñoom ñoo ko wax de ñoom waa Banque mondiale. waaw léegi euh, li ma bëgg a wax mooy. comme par exemple tey euh, boo xoolee Covid 19 bi. sonal na réew yu baree bari ci àdduna bi. Mhm. mais fii nga xamante ni mooy Afrique. Mhm. xamaguñ nag lan moo fii xew. Mhm. teewul nag ay milliards milliards def nañ ko ci ay jumtukaay. mais dama ne réew réewu Afrique chef suñu chef suñu njiitu réew yi. ni ñu teelee yuuxu. wax pour ñu baal leen bor bi. est-ce que teelul loolu laa wax. est-ce que mënuñu woon a dem ba kanam bu doon da ngay àbb xaalis nga àbb xaalis wala dara mais niñ teelee ñoom ñëpp teel a yuuxu ne nañ ñu baal bor bi am na ñoo xamante ni loolu mbir mi sax euh, daf leen a rusloo. dafa opportunité la opportunité la ñu poser le problème de la gouvernance du monde dafa ne opportunité ñu concevoir benn nouvelle ordre mondiale opportunité la Afrique bañ a fay loo xamante ne bor boo xamante tegul fen du tere nag ñu demander à des gens qui ont mal géré nos pays de rendre compte deux affaires la yu bokk problème de souveraineté africaine tu mu mu munoon yore ay bor bor yi tënk la nga naan ne yaa moom sa bopp. munoo décider sa politique économique sa politique sanitaire munoo ko def décider munoo décider sa politique éducative tu es dépendant parce que da ngay fay te ñoom duñ la jox duñ la lebal du lu ñu bëgg nga def ajustement structurel depuis quand dafa toll jotoo xamante ni ñu moomaat suñu bopp reconstruire suñu bopp jëflanteeg addina si ci jëflante ci règle yu bees ils n'ont plus à dicter Euh, sa c'est on doit faire corps avec Macky pour exiger l'annulation des dettes et maintenant. si Macky Sall la war a jóge non du moo yor cëggal gu yam même bu ngeen ko ko imposé moom ñaan la man ñun imposé wuñ ko c'est-à-dire c'est nos opinions yéen yi yéen yi yéen a war a fexe ba nga xamante ne ñu xam ñun en tant qu'Africain en tant que Sénégalais que la dette et sa gestion c'est des entraves à l'exercice de souveraineté et que ñaanuñu nañ ñu baal nañu def li ñu moom la parce que liñ ñu lebal dafa jóge ci ñun d'abord li ci des nag ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañu dénkoon réew mi chargé la ñu tabax réew mi bu ñu wéeteeg ñoom ñu demandé leen yéen li ñu leen sasoon lan ngeen ci liggéey loolu beneen atte la c'est pas parce que dañu bañ wala wala Macky Sall nu muy gérer gi que li mu wax amul solo nañu baal bor yi mais effectivement jëmukaay la li ci des jàpp nga ne dina jàpp nga ne dina nekk baal bori yi ak buñ baalee bori yi euh, jeexital bi solo si fan lay toll. li am importance pour je c'est il faut construire une opinion publique africaine mais si ñun bu ñu mënul porter yenn combat kan moo koy porter en notre place Macky Sall ne doit pas être seul dans ce combat muy benn deuxièmement ça ne signifie pas que l'absolvation baal nañu bor yi que dañuy boraat yeneen di tabax ay terre wala def lenn l'ordre mondial économique à l'extérieur Afrique am ci wàllam mais au niveau de notre ordre interne nos priorités xaalis bi ñuy jeegaane bu ñu fayul boria fan lañ koy investir warul dem ci poosu Masamba ak ma demba ak borom barke yi démb dafa war a suqali mbéy ma dafa war a defar carte sanitaire ba dafa nga yaakaar ne seen normal que ku feebar ñu indi la fan di la faj. ci Covid 19. waaw léegi mënuñu woon am euh, hôpital ci hôpital de niveau. Euh, niveau trois ou quatre au niveau de chaque région du ah, Sénégal d'accord léegi jërëjëf euh, Abdoul Malick bu soo mbokk réew mi FM ngeen di déglu seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot quinze heures seize heures xam nga forum civil sénégalais yu baree baree bari dañuy dégg bor bi comme man ni ma koy déggee ñëpp di ko ko déggee hmm. ñu ne Sénégal Euh, réew la moo xamante ni ñun li ñuy leb si xaalis dafa bëri mais ma jàpp ne réew moom leb mënuta ñàkk mënuta ñàkk euh, waaye ñun ber bor bi fan lañu koy dugal ndax tey soo xooloon tey Sénégal néewaa a fooy de ñun bañee ko ba jafe-jafe sax dañ ko am mbirum mbirum sax sante ci Covid 19 bi wane na ko mhm. Covid 19 bi wane na ne ñun ndeke lépp lu ñuy lekk dañ koy jiggaani bitim réew ñu suñu bopp mënuluñu suñu bopp dara soo xoloon suñu njàng njàngale mi covid 19 bi wane na na ak fi àdduna toll waroon nañoo mën a def comme par exemple suñu université virtuelle yi ak yeneen ak yeneen mën nañ ko dooleel ba nga xam ne covid 19 bi bu amee tamit teewul kenn ku nekk mën ngaa toog fa ngay toog di jàng méngale ko nag ak xarala yu yees yi mm-hmm. tey ñun suñu secteur yépp bu dee tey par exemple tey dafa nërmeelu léegi xaalis bi ñuy wax moom lañ lebeeg yooyu est-ce que fi ñu ko dugal réellement amal na askan bi njëriñ. Ah, loolu laal doon wax dama ne suñu ordre interne xoolaat suñu priorité xam nga ne boo jëlee cinq cent milliards wala trois cent milliards di ko dugal ci stade. xale yi xale yi di jàng ci abri abri provisoire y a problème. Mhm. donc dañu war a réinterroger priorité président de la wax na ko ci ci discours bi l'ordre du monde dañ koy xoolaat priorité dañ ko xoolaat ni ñu doon jëfee dafa war a soppeeku à l'échelle de l'individu à l'échelle de la famille à l'échelle de la société à l'échelle du monde dañu war a xoolaat lan mooy suñu priorité replacer doomi aadama l'individu au centre de tout le citoyen hmm. nit ki dafa am ñeenti wareef yoo xamante ne ab alal ak koom ak réew daf ko war a mun a assurer doomi réew mi mun a lekk li nga xamante ne moom la ñu produire lu ñu jéegaane superflu lay doon. doomu réew mi bu feebaree ak fu mu mun munti ci Sénégal mu mun a accéder à des soins. fa mu nekk fa mu nekk. mais boo defee prélèvement mais boo defee prélèvement Tamba wala wala autopsie Tamba sax Dakar nga koy indi. loolu doomu réew mi dafa war a fu mu munte nekk jàng ci jàng bu ko bu bu mu méngoo donc région du Sénégal bu nekk war na am université école maternelle école primaire école secondaire CM CS. ba xale bi du dox sept kilomètres pour dem jàng war nañu fexe ba xale yi mun a jàng yooyu mooy. lu tant que moo ko mënoo ko def te ce pays n'est pas souverain bu munul assurer li tu ne peux pas être souverain te bor yi financement politique publique les politiques économiques yu ñu mëne dafay gàllankoor tabax yooyu te loolu mooy yoon wi boo gisee France éprouvette masque Chine la leen di jóge lu ñuy defar finalement intérêt bi doo dul régler problème mu nit ñi mais comment faire plus d'argent et faire plus d'argent moo ñu indil bori yi parce que dañoo ñëw ci man ne ma dama lay tabaxal autoroute waaw ku nekk bu gën a autoroute fii ak Touba rafet na jekk na jekk na mais lu ma ci intéressé mooy sama matériel dem sama ingénieur yi am liggéey sama capitaux yi dem ma am xaalis en retour am ñu ma graissé parce que xëy na intérêt bi du woon autoroute mais peut-être une route nationale. waaw d'accord mais mais mais xam nga tey euh, loolu euh, maanaam. mën nañu ko priorité yi nga wax. noo non non xam nga tey par exemple tey li nga wax nii euh, ci autoroute bi wala tey ay stade wala dara. même su dee nit mooy ñëw tabaxal la ko ak yow noo koy fayee man damaa jàpp ne tey nit ki su dee ñëw pour dimbale la war na laa laaj. sa xel ci lan la màcc wala lan nga bëgg ku ci dimbale wala lan mooy sa priorité réew ñun suñ priorité réew tout nasaraan yi ñoo ñu ko gën a xam léegi lan moo tax ñuy bàyyi ñoom ñuy ñëw di ñu di ñoom di ñu forcer wala di ñu wax ñoom lii la ñuy dimbale ak ñoom seen xaalis ñoom ñooy xool fañ ko bëgg a dugal ñu dugal ko fa ñu seetaan leen ci lool parce que yow en ce moment boo buggee tabax boo buggee tabax amaloo tabax da ngay koy lebi. xanaa waa ji mooy ñëw offre ngay fayeku parfois nga mettre ko en concession waaye di utiliser di ko dawal ngay fay wala li ñu utiliser bi mooy fay investissement ba c'est à long terme mais li koy alourdir mooy frais financiers yi d'abord yow mi nooy xamee Sénégal war na soxla autoroute dana dana am ku dem Turquie waxtaan ak Turquie ne leen ah mbir de dina am boo leen demee Sénégal yi ne leen ah boo leen bëggee autoroute d'accord mbir mi dina yomb. d'accord euh, ah, euh, dana am lu dem ci ab euh, pause Abdou Khader tuuti. d'accord léegi ñu wax ci kii li nga xamante ni tey mooy Covid 19 bi ba tey gis nañ ne cas yi ma ngi gën di yokku lan moo ci sa xalaat ndax démb dégg nañ président wax ci ci RFI mu ne soo muytuulee 18 la ñuy commencé léegi ba 7 heures du te tey jii si samedi jii rek gis nañ ne 5 cas communautaire am na. xam loolu lu ko indi. Mhm. mooy que fi mu ne dañu toll fu médecins yi commencé nañ jaaxle. fii nii waaw parce que malaat boo xamante ne xamoo ci kan la ko tibbee xamoo fan mooy jaar-jaaram ak kan la ko yot balaa muy yegg ci ceew musiba la te lu koy indi ci ñun ñii sénégalais yi lañ dañoo yaruwul amuñu discipline lu ñu tere dañoo dëgër bopp lu waay def lu la neex mbedd buur dafoo ko ne yow yaay buur mbedd mi yaa ko moom da nga koo jëflanteeg ñeneen loolu la neex nga ciy def nit ñi duñu ñu sorewoo du ñu sol masque les gens ne se protègent pas et finalement yaakaar ngeen ne c'est normal qu'on apprenne aux Sénégalais comment se laver les mains et qu'il faut se laver les mains am na loo xam ne c'est pas Macky Sall waru ko def ak ñun. léegi du Macky Sall moo ñu ko war a def loo. Mhm. léegi yan dogal lañu war a jël instant bi yan yow nga xalaat yow en tant que père de famille en tant que citoyen sénégalais. xam nga xam nga lu koy indi mooy que. on a on a les libertés des gens tere nañ jullit yi ñu dem julli ji juma am na lu mu tekki ñu ju ñu ñu. ànd nga ci yow. chrétiens yi bu ñu dem ci église xam nga lu luñ ci nam namm. Mhm. terewuñu nit ñi julli de mais dañu teree dajaloo bi mais loolu lañu am ci marché yi loolu la am ci oto yi nañu nañu nañu nañu rey le système de obliger les gens à rester c'est de supprimer le transport public. Hmm, moo a gaaw ah oui absolument ci lañ jëm. confinement lay doon te en ce doo génn di wuti. Hmm. mais demal wuti ci anam yu rafet nañu utiliser suñu marché yi euh, utilisation bu rafet yow boo ma jiitoo naa la sore def un mètre. est ce que jàpp est ce que jàpp ne bu état bi bu jëlul ay matukaay jamono jii mbir mi mën nañ ñoo dem bëpp ñu loxo. mais fa lañ jëm. kon responsabilité état la. du responsabilité état rek si responsabilité état la. du responsabilité état rek. waaw lu tax responsabilité citoyen lañ. Mhm. xam nga actuellement dañ am na nu ñu tabaxoo. Mhm. réew mi dafa bëri góorgóorlu. Mhm. dafa am ñoo xamante ne mel lu ñu yow ni man. chaque jour la ñuy xëy wuti. mais ni ñu koy wutee moo ñaaw. ni ñu koy wutee moo rafetul. te bu ñu teree wuti dinañu gar dina lor ñu bëri boo gisee. Euh, mode de réponse état bi def ay séquence ñun xeeb nañu sax mode de réponse état bi parce que au départ dañu ne woon état bi prend des mesures drastiques qu'on la question en quarante cinq jours mm-hmm. dañ tëj lépp mm-hmm. malheureusement mënuñu parce que ku ne mënuñu la jox saaku ceeb ci sa biir famille xëy na les gens ne sont pas préparés à ça mais on risque d'aller en confinement dans les pires conditions parce que l'État réagira au lieu de parce que li ci jiitu faire adhérer les gens en changement de comportement mmh. mais malheureusement suñu tabax en tant que sénégalais dafa doy waar il faut pas tout poser sur la responsabilité de l'État on ne peut pas mettre un policier derrière chaque sénégalais mais xoolal li li li xew ci suñu marché yi mm-hmm. xoolal lii nekk ci oto yi xoolal dugal Grand Yoff tu es sidéré mhm. war gaynde yuy dugg ci àll bi di yóbbu. Mhm. mooy indi cas communautaire loolu responsabilité état la aussi moo tax ma la doon wax loolu. a nekk ci ci ci falaise yëpp def lépp. waaw non xam nga lu taax xam nga at lu ñu mën mhm. génne takk der yi. dugal leen du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg mais am na loo xam te ne citoyen moo ko war a def. yow boo gisee boo gis waruma dem Touba du ma dem Touba. waruma dem Saint-Louis du ma dem Saint-Louis. mais état dafa moo la war a moo war a jubbanti. non loolu dinañ ci yegsi mais bu ñu koy yegsee généralement c'est tardif day fekk musiba ba am na gis nga yow mi doon dëgër bopp yaa ci njëkk a loru. waaw daa mais fi mu ne nii may wax ak yow nii. fi mu ne nii may wax ak yow nii soo xoolee boo gisee ma ne la am na ci loo xam ne responsabilité état la état bi dafa tere woon ne euh, bi ñu defee état d'urgence bi région ak région ñu gis na tey par exemple tey. Euh, war Gaynde yooyu ngay wax noonu allo taxi yi ñoo ngi jóge dakaar di dem Touba ñi nga xam ne ñoo moom euh, allo taxi nekk ay kilifa dem ñu jox leen ay autorisation ñu jox ko seeni chauffeur ngir seen intérêt personnel loolu saytu boobu noonu tey Touba euh, si misaal demoon na ba nga xamante ni amatul cas bu ñuy wax cas communautaire lan moo ko fa waral oto ya nga xam ne ñooy dugg ko ko génn loolu responsabilité état la ñay ña ña fay kii si fu ñuy jaar su dee tey mën na ñëw jóge Touba ñëw ba Dakar te jaaruñu si ab tali hmm. kenn kenn dogalantewu leen benn takkateer dogalaalewu leen kon xanaa kon ñoo ngi ñoo ngi si insécurité beneen bi tey lan moo tax cas communautaire mën a am fenn ci marché si marché tëjuñu marché bi ñu toog vingt quatre heures même marché bi am cas communautaire quatre cas communautaire ñu bàyyi marché bu muy wëy ba léegi ni tëjuñu ko cas communautaire bi ci marché bi la am si ci la am ça deuxième cas communautaire bi ci marché bi la am c'est pas normal wax moo tax ma ne la am na tey par exemple yow yaa ngi ko doon wax sax gis nga dafa am loo xam ne. am am nit ñi mënoo mënoo leen mënoo leen tan que jëloo mesure tere dem ci marché parce que tëjuñ marché. mais préfet mën na jël mesure. mais ñun ñun au départ la ñu wax président la république tous les lieux sans distinction yi nit ñi war a dajaloo nañ ko tëj. Mm-hmm. est-ce comprendre. Mm-hmm. moom dawal nañu xëy na yërmande la dawal wala moo xam li mu dawal mais toujours est-il lii lañu am li ñu ragaloon mooy cas communautaire yi te loolu loolu lu ci lett état am responsabilité ça ne dédouane pas le citoyen de la responsabilité euh, aar boppam aar njabootam aar ay dëkkandoom nit ñi nañu yem bu ñu yemul li nga xamante ne moo tëj Macky ci biir Mermoz dina tëj ku nekk ci biir néegam ça hmm. c'est clair fa lañ d'accord mais xam nga Euh, mbokk yéen a ngi déglu Rewmi FM xam nga tamit euh, Abdoul Malick Bousso yow nga bokk ci Forum Civil euh, sànq gis nga ko xamuñu senegal xamuñ tëj ay juma xamuñ tëj ay jàkkaak yi ay église tey dama ne état bu sañee jël ak nit ki ngëm-ngëmam fi mu toll xam ne jéggi na dayo nga tëjal ko bërëb boobu nga xamante ni tey bu jaaxlee wala mu am jafe-jafe fa la doon dugg ñaan yàlla suñu borom nga tëj bërëb boobu te ñun ñëpp xam nañ ne julli ajjuma tey bu paasee julli ajjuma amul benn jumaa buy fees Dakar ñun xam nañ loolu euh, tey euh, même bu dee julli ajjuma la ñay dem di julli ji mais dañuy sangu ba set te tey bu ñu demee kenn ku nekk day toog fi nga taw yor sa kurus amul nuyoo amul wax ba ay tifli di la dal comme ni ñu ni ñu jàkkaarloo mën a yow nii amul si biir jumaa ji te biir tey boroo moon tey kastoor bii wax dëgg yàlla ci marché bi nit ñaa ngay jaxasoo nit ñaa ngay jokkalante xaalis subaa ngoon guddeeg bëccëg loolu dëgg la mais jumaa ji ngay wax jumaa mm-hmm. yi ngay wax boo gisee coronavirus am problème boo gisee ku dem màkk ñëwaat soj su jumaa yi ñuy daje ci bayte laal xaraam ñu war fa lañ ko jële wala ci jàkka yi sallallahu alayhi wa sallam amidin ñi aji màkk yëpp dinañ la wax loolu mm-hmm. gis nga uh, ab jullit ab jullit ak ragal yàlla du ci jumaa jël la nekk ci xol bi la nekk mm-hmm. dañu am ay jikku yoo xamante ne non non non cas bi wax jikko yooyu il faut ñu dootanti ko non misaal bi ma lay wax non misaal laa la jox xam nga dama la jox misaal waaw dama la jox misaal xam nga dañuy tëj restaurant yi jox misaal na la Castor tey boo demoon ci Castor ci biir marché bu Castor am na jumaa ju nekk ci biir marché Castor waaw ci biir marché Castor bii am na jumaa ju nekk ci biir marché bi waaw tey jumaa jooju tëj nañu ko mais ñu marché bi te ña doon dajee ci te te waaw gis nga marché bi xam nga marché bi euh, lu tax ñu war ko tëj dañ ko war tëj dañ ko war a tëj. lu tax ñu war ko tëj. Mhm. parce que ni muy fonctionner moo dul yoon. bañ war ko war nañ koo tëj kon. dañ ko war a tëj. d' accord loolu laa mais léegi léegi xam nga lu tax ñu bàyyi marché yi utile ñuy fonctionner. Mhm. Sénégal yi amul kenn ku yore ration chaque jour da ngay dem marché jënd li nga lekk loolu moo tax tëj mais puisque nag ñun mënuñu yar suñu bopp discipline suñu bopp ba nga xamante ne jumtukaay yooyu ñu mun ko defee parce que supermarché yi les gens les gens y vont lu ñu def suñu marché comme supermarché. da ngay da ngay rasu da ngay dem distance yiw ak ki nga ki lay kii nga xam la yore boo ko joxee xaalis bi du ko dugal da nga ko désinfecté mais loolu yëpp duñ ko def dañuy puusante suñ jigéen ñi ñuy puusante pour ñëw boo yegsee indaale ko dugg teg sa bagage togg sa añ waa kër gi dënk loo ñoom ñëpp ci biir autour du plat yéen ko wala xale bi jël añ bi yóbbul ko mag ba nekk ci kaw du lekk ak nit ñi contaminé waa kër yi fa la jóge du xam fu mu ko jëlee yooyu c'est ça le danger bombe boobu moo nekk ci kaw nit ñi. nii yow loo xalaatoon na moom la ñu war a jël instant bi tëj ka ne mesure. tëj marché yi. marché yëpp. tere gis nga Dakar. Mhm. Dakar. Mhm. ko doon confiné wala gisoo loolu. bien sûr kenn du dem kenn du dikk parce nit ñi mënuñu leen. toog leen ngeen téye seen bopp ñu obligé leen ñu toog ñu obligé leen ñu toog mais loolu solution à court terme la xam nga lu am sañ mooy que sénégalais bi intériorisé que réew mi nit ki intériorisé que monde bi yàlla de la ko dénk yàlla def la fi teg pour que nga dund dundin wu sell mm-hmm. yow yaa war a tabax sa bopp nag ci loolu respect de l'environnement qu'est-ce qu'on a fait ressources yi lu ñu neex lañ ciy def lu ñu neex la ñuy mel lu ñu neex la ñuy lekk lu ñu neex la ñuy comporté wu loolu tant que dàqul hmm. bu dul covid 19 bi covid 31 dina fi ñëw désigné nit ñi d'accord léegi euh, Abdoul Malick Bousso yow nga bokk ci Forum Civil suñu mujjantalu laaj Sénégal jamono ji ak ni nga xamante ni moom la commencé nërmeelu ci wàllum économie jafe-jafe yi lan nga jàpp ne war nañ ko see jànge bu Covid 19 bi jàlleek jàmm ak euh, nan la ñuy def ba jógaat ndax ñoo ngi si jafe-jafe. Euh, d'abord ñu compter ci suñu propre force xam li ñu mën li ñu def li ñu yàlla wërsëgal ñu jëfee ko nañu investir ci suñu mbéy nañu naatal li ñu yore. Euh, xam nga xam nga dem nañu ba amuñu amu amuñu usine pharmaceutique mhm. te fi mu ne euh, maa ngi doon liir léegi léegi bi may ñëw que l'organisme bi ngay bi saytu les médicaments en France mhm. dafa suspendre toutes les exportations des laboratoires français vers l'extérieur loolu moo tax moom laa la doon wax sànq li ñuy fay boria xaalis bi ñuy jéegaane li nañ ko dajale investir ko suñu ay priorité construire suñu souveraineté léegi la commencé changer suñu jikko xam ne réew mi dañ fi jaar moomuñu ko dañ ko war a jox ñii ñëw suñu ginnaaw dañ leen ko war a tabaxal ni ñuy suñu bàyyi tabaxee woon réew mi fexe ba nga xamante ne dërëmu Sénégal na dem ci faju askanu Séné euh, euh, soxla askanu Sénégal mhm. nañu sellal jikko yi seetal yorin wa jërëjëf ah jërëjëf euh, Abdou Malick Bousso jaajëfal nañ la bu baax a baax am mbégte kontaan ci waxtaan bi am nañ ci lu kawe suñu njort. man tamit maa ngi jégalu ci. wolofu pulaar la <laughs> mu doon xëy na français ma gën a nekk à l'aise. Euh, macha allah kontaan nañ jërëjëf. jërëjëf euh, Abdoul Maliki euh, Bousso moom nag mu bokk ci Forum Civil bureau exécutif Forum Civil ñoo koy jaajëfal baax a baax kon mbokki li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Adama Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak